benn yaay sikkul benn papa sikkul ndax li ngay muñal yaayu jàmbur ak di ko muñal papa jàmbur soo ko muñalee sa papa ak sa sa yaay di nga dëkk ak ñoom waaw ndax nit di nga ñàkk jubóog sa doom par exemple génn ci mbedd ñu naan sa doom dafa gentil dafa baax dafa aimable dafa lii dafa laa te yow dundul ak yow loolu kon ana gentillesse ba mhm. njëkkee ci sa yaay njëkkee ko ci sa papa waaw man nag du ma sàmba àllaru kenn man lu ma waaye lu ma defal nit mu di ma gërëm mhm. wala ma waxal ko nit mu di ma gërëm sama papa laa ko sama yaay ba pare ñu jëlee foofu la ngay jox conseil tamit ci jeunesse yi parce que ñu gis xa léegi jeunesse bi kenn respecté wul sax mën naa ne sax ay say say parent ngay gis ñu jël ay appartement lan nga leen di wax. waaw dama leen wax ne dañu réer pour man dañu réer xam nga man fi may gis nii man seen naa ba tas am naa ay doom te macha ki may liggéeyal def lu dul fay su ma neexoon jëli sama appartement. Mhm. ma dama dem lu léegi ji. waaye euh, waajur da di gàllaaj mhm. waajur da di gàllaaj te ñooñu pour man dañu réer. ak ñàkk xam ak euh, ndeysaan topp tendance àdduna sama AP. am na ñoo xam ne su ma leen nee AP dañ naan luy AP. may leen AP mooy appartement moom la xale yi jël léegi ku ci fi ñu toll nii man li ma gis ak li ma jàng. Mhm. Euh, ku ci amul AP bokkoo ndeysaan tendance lañ ko def dafa xew maanaam dafa xew dafa nekk à la mode euh, dañuy gis te sax ne ci jamono ji xale yi jigéen sax ñoom ñooy forcé pour dem di mooy pour bëgg góor ki takk ko ñi daal ñuy jël seen xaalis. est-ce que noonu tey euh, yoon la tey xale jigéen ñi def loolu. waaw mais AP ni mu nekkee euh, tendance noonu la kaay ma takk la nekkee en tendance ci xale yu jigéen yi xaaratuñu xale yu góor yi takk leen. Mhm. waaw am na ci ñoo xam ne par exemple dañ lay sax proposé kaa ñu sëy nga ne yoroo dara parce que amagoo liggéeyagoo dugg na fi génne nga ne non man mun naa jënd guro. Mhm. fi ñuy dëkk aussi garaawul mun naa ko fay. ñoom ñooy gérer lépp quoi xale yu jigéen yi. waa kon yow xale góor bi moom lan la la indil. te dañ na woon jigéen na nga toog sa peggu ndey ba góor fekk la fa takk la defal la jàppale dimbale garab bu la sutul du la may ker tamit benn mhm. instant voilà hmm? mhm. euh, li nga moom la maam yi daan def ñoom la moo tax ñoom duñ ko ñu bëgg léegi ñoom ndeysaan moo tax ñu naan léegi mhm. ah, xale yu góor yi ay intérêt la ñuy dundee non non xale yu jigéen ñi ñoom ñoo leen ko ñoom ñoo leen ko ñoo ko def seen bopp yi ñoo ko def seen bopp ndax booy nekk góor ka wax dëgg yàlla chaque instant yaa ngi koy jëndal chemise yaa ngi koy jëndal crédit yaa ngi koy yónnee yaa ngi koy yónnee connexion yaa ngi moom lan lay defal kon si topp ñu seen bëgg-bëgg rek. ah mais waaw mën na nekk tam parce que nag kaay ma wax la tamit du leen blâmer benn instant parce que tam bëgg tam laa lay tegal nii de. Hmm. bëgg dafa garaaw de. bëgg rek nit hmm. nga bëgg nit rek mu jaral la lu ne. waaw booy def yooyu yëpp sax doo ko tey nag bëgg leen dominer ndeysaan bon appétit. Hmm. bëgg dafa metti belle mère dafa bëgg xale yi. waaw parce que dañuy gis ta nit ñi naan ci théâtre bi naan non mère bi lii ak mais foo ko fekk. xale yu ndaw yi moom mooy ay moromam ñee laa yow lan moo sa secret loolu ci <laughs> man nag loolu même man je la question. <laughs> Mhm. gis nga man su ma demee euh, ay jàng parce que li may dem ay jàng moo ëpp que li may dem ay euh, soirée man mun naa ne bàyyi ibaadu laa léegi bàyyi naa soirée. waa léegi li may dem euh, su ma demee ay jàng par exemple fi may toog du ma ko seetlu de. Mhm. mais à fois damay gis ni après laay a remarqué su ma coow li bari le bari sama ginnaaw. man la moo tax fu ma toog ay xale rek man du ma toog ci biir nit ñi du ma toog ci mag ñi. mais loolu dama ko def remarque ci man xaw ma lan nag yàlla lu mu def ci man la mhm. wax dëgg yàlla. te xale yi aussi noonu laa leen bëggee macha allah. da ngay guitare. waa Tata Binta mi ngi jàng guitare. mi ngi jàng guitare ngi jàng guitare. mais mun nga ci tuuti. waaw mun naa ci tuuti rek gaam tuuti rek benn gaam bu ndaw mun naa la yóbbu euh, euh, miiree. waa waaw la ci gaam 3 3 bu baax waaw miiree. Hmm. am nu ma la defal waaw. bu ah. fekkoon par exemple guitare geeg fii su ma téye woon par exemple kees gi nii. damay kepp mii mii ñaari loxo yi la ak bii kaw ak suuf. def trois temps tak tak tak tak tak tak su ma paree daal di wàccaat. Mhm. ree daal lay may lu neex. bu fi gitaar gi nekkoon nga dégg lu doy waar. waaw. bu ñu ci foofu tamit ñu ñëwaat ci Covid bi. waaw ngeen artistes yi. Euh, fan yee paase rek ngir ñu bi di mars. Mhm. en tant que artiste ngeen nekk soutien de famille. loolu mhm. ngeen koy dundee. waaw metti lool ci ñun nag metti lool ci ñun parce que euh, suñu activité yu bëri dañ ko euh, dañ ko arrêté metti na lool ci ñun wax dëgg yàlla. noonu noonu noonu euh, mi ngi metti quoi. mi ngi mi ngi metti